aasbillahi min asheytan rajim bismillahi rahmaani wa sallallahu sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokk yi ni seetaan ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Ousmane Mbacké mi nga xam ne moo jiite diwaanul muridina di jël nuyu bi ak siyaar bi mu jotal na ko kilifa ak béréb bi muy sëñ di ñaan yàlla sunu kaddu fekk leen ci jàmm di nuyu mbokki taalibe yi ak mbokk yi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi muy ñi nekk ci communication ak culture te bu ñu tuddee sëñ Ahmadou njaay mu yóbbaale ñu ñëpp ak mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci sous commission yëpp mbokk yi nag jotaay bii bu ngeen ko gisee ñu xam ne dafa am bis boo xam ni daa doon bis boo xam ni bisu murid yëpp la mooy isriina muharram te dëgmal ñu di ci fàttaliku bu baax Cheikhuna Ahmadul Xadim mi nga xam ne ci bis boobu yàlla dogal na ci la ñibbisi woon ci dëkk bi ñibbisi itam xanaa léegi la niru la yomb waaye jamono yooyu mu nekkoon la jafe lool fa tabarakallah Serigne Touba dénkoon ko jàmbaaram ja Cheikh Mouhamadul Moustapha ngir mu li mënalut boppam mu defal ko ko mu indi ko Touba te bu xaddam bokk yi waxtaan woowu nag. incha allah waajtaay wu ci bis boobu moom lañu waajale ay tomb yoo xam ni danañ ci dikk ci anam gu yaatu ki ñu koy defal di Serigne Mbacke Lo Nayloul am muy ku ñu xam ci Daarul Xuddus di yëngu ci xam-xam ak gëstu ñeen ya ñu ñaan yàlla defal ko tawféex di gërëm it Serigne nga xam ne mooy coordonnateur bi ci. Euh, commission culture bi ñu ngay ñaan yàlla yàggal taxawaayam ak bokk yi nga xam ne ñooy technicien yi nekk ci caméraman yëpp. xam ngeen ne sëñ Modou Sane nag loolu defoon sëriñ Mbacke responsabilité la kon waxtaan wi li koy tënk rek mooy sëriñ Modou Sowa ak masuliya maanaam muy responsabilité waaye bala nga may dikkal ci sëñ Modou Sowa ak responsabilité dafa am lum dundoon ak waajuram ba muy Cheikhna Ahmadul Khadim. danga may dikkal ci yan matuwaay la jëloon bi Serigne Touba di nekk nekk ci jamono mu nekk fekk moom ba bi mu fi jógee mu mën a mottali ay ndigalam jëfelam ko te loolu it du gan ci lislaam da nga fàttali ne yonent fàttaliku ne yonent bi sallallahu alayhi wa bi muy jógee Makka jëm si Madina amoon na kum dénkoon masuliyaam mooy kan imaam Ali radiyallahu anhu kon mu mel ni Cheikh njëkk muy. jël responsabilité ko Serigne Touba joxoon am na nu mu njëkkee woon ci diggam ak Serigne Touba bokk yi nag bu ko defee waxtaan woowu li tax ñu di ko andi itam mooy ñu delloosiwaat qualité yi nga xam ne amoon na ko ci jamono ndax loolu bim koy def kat bu kenn jàpp ne daa am juróom-ñaar fukki at wala juróom-ñett fukki at ñeent fukki at képp la amoon kon booba daa mel ni ndaw la woon kon Serigne Mbacké euh, ñu ngi lay dalal kon suñ première question daal. mooy Serigne Touba Serigne Cheikh Mouhamadul Moustapha bi mi laataan matale responsabilité yi ko Serigne Touba dénkoon nan la dundee woon Serigne Touba bi fi nekkee sëñ Mbàkke Lo bisimilah tafadal maskura asubillahi samil alim min sarri saytaani rajim wa min sururi nafsi wa idlalil hawa wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina maulana muhammadin il makin wa ala alihi wa asaabihi wa Eh, ñoo ngi leen di nuyu fii ci daarul xudduus mm, di leen siyaare di tàmbalee nuyoo boobu ak siyaar bi ci saahibul fadila saahibu xadratul mustafawiya si ahmadul muxtaar di ñaan suñu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko ak mboolem njaboot gi nga xam ne ñu ngi ci suufam ñëpp ak njabootuk lislaam gépp nuyoo boobu ak siyaar bi Euh, mu jébbal ñu ko xalifatul xadim di Seex Muhammadul Muntaxa di ñaan suñ borom yàggal ko lool te wéral ko noonu xam ne noonu ko baaxoo defee ci waxtu wu ci ne ni ko sëñ Basiiru Sekk waxe suñ ak siwaane ci jamono jii ci weer wii di weeru muharram suñu xel dana am lu dem mu weeru histoire weer wu yaatal woo xam ne lu baree baree bare xew na ci sunu jàmbaar ju mag ja wuy ji woon ca boroomam di si Ahmadul Xadiim ñu di ko ca fàttaliku tey jii nag ne ko sëñ Basiir waxe mu mel ne bokk na ci bunt yi nga xam ne bëgg nañ koo jàngale mooy jëmm joojee xam ne moo ko defaloon ak bëggam ba kenn gisut ca moom lenn lu muy xebat ginnaawam kookee tey ñu waxtaane responsabilité boobee mu amoon ni mu nangu woon a gàddoo ay responsabilité waaye lu taxoon mu mën koo gàddu euh, loolu ñu ngi ci sant bu baax laaj na ilmiya bi sëñ Abdourahmane Dieng di coordonnateur bi ak mbooleem bokk yi nga xam ne ñoo nekk ci biir ñëpp xana tey ñoo taxawal lii ba lii man fee am loolu lu lu yomba wax la ci Cheikh Mamadou Moustapha ndax wal baladu tayyibu yuxriju nabaatuhu bi isni bi doy na rek ñu wax la ne la kun um, Cheikh Moustapha ku jëloon ay masuuliyaalam moo ay responsabilité waaye ku nangoon a gàddu ay responsabilité la ku nangoon a gàddu diis diisi jamono ak i naqaram ci kaw waajtaay wi ñu ko waajal ndax buñ ne woon rek doomi seexul xadim la doy na sëkk ndax sëriñ bi moom buñ ko xasee tudd du tudd la rek dara diisatu ci yow waaye loolu dong buñ ko nettali woon rek dana doy sëkk bu ñu waxoon nit ne sëriñ bi moo ko préparé parce que ñu bari dañuy faral di jaxase ñaar mooy jàngal nit ki ak yar ko waaye istiadaat ko préparé ko ba nga xam ne bu ëllëgatee lu ñëw dana ko mën a àttan jàng dong dafa doyut ci doomu aadama jàng rek dafa doyut waaye diis diis si àdduna dañ koy defal ba dañ koy dañ la ci dañ la ciy nattu di la ci yan sëf la ci ba nga xam ne boo ëllëgatee lu ñëw rek loo lépp loo lépp loo gis rek day way toy ci yow Cheikh Moustapha loolu sunu borom defal na ko ndimbal ci ak ndawam ci anam yëpp nag ci xeet yi tërbiye yëpp sëriñ bi xane ci lay waajale nit ëllëg ku war a yanu ay diis diis waajal nañ ko ci noonu Euh, dama ciy faral di nettali loo xam ne sëñam sutu jaxate moo ko ci nettali woon bis daa am alaaji jili mbay dafa ñëw fi moom doon ko siyaare si mu di ko nettali diggante moom sëñam sëtu ak alaaji euh, sëñ mat saxeer seen diggante ne ko am na bis boo xam ne sëriñ bi ci tërbiyee gi mu daan tërbiyee njaboot gi ne ko man mii ak seex ma Cheikh Mamadou Moustapha ak sëñ mat saxeer ca la bokkoon def naa su ma juumut ak sëriñ fàllu wala keneen la nee na yan na leen am mbaar fa ci yéen moo xam ne yan na leen ko ba noppi ñu door di gore jën ya nga xam ne mooy yanu mbaar ma kon ma ngi koy tërbiyee di ko waajal ngir xam ne ëllëg am na loo xam ne responsabilité bu war a aju ci moom te yii yëpp boo ko mënta gàddu nit ku ko mënta wuur doo ko mën a yilif loolu aw wàccaay la loola taxoon na mu teela a yanu diis diis yooyu yëpp nangoo xamit lim lim yanu lan la moo tax bi sëriñ bi demee ci géej gi ba ñibbisi ba dem gànnaar mu fekk ka fa bi maam na di ñëw te indaale woon ko gànnaar bi sëriñ bi dellu bi maam Cerno di dellu si sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Moustapha dafa bokk ca ña fa des wala moo fa des te booba yërëm gum yërëm sëriñ bi ci yan bi ak diisaay bi ak it miinal nañ ko maanaam mu xam ne am na ëllëg ab responsabilité bu mu war a am mu fas yéene tàmbali nag aw jën bu fekkee ne bëgg nga ko wuutal weneen faaw nga róof ko ca wet ga ab diir ba xam ba xam àttan na ko wala déet loola la tàmbali woon doon gis moo tax bi ko sëriñ bi laajee ne ko lu tax di moo mu ne ko mbàkke day yërëm naa la yërëm yërmaane joo xam ne mënatuma laa bàyyi fenn wan mënatuma laa wan gannaaw kon loola ca booba boo xoolee ci 1905 ci xam ne euh, ñaar fukki atam matagut ca la tàmbali yanu responsabilité yooyu mooy mënutata woon gannaaw sëriñ bi kon li sëriñ bi di waajal ci moom kon kii dana ko mën a maanaam mi ngi am mi ngi yaakaaru loolu kon responsabilité la fa la tàmbalee nangu nanguutut a bàyyi it sëriñ bi ci genn anam ngir nga yanu responsabilité mooy walbalatu tey bi dafay am mooy da ngay bokk ci dañ lay waajal ci ak bokk ñu ñeme woon ay fitna ñeme coona ñeme yenn responsabilité ba noppi ci ak njaboot ci ay bokk waaye daf caa bokkit ñu bañ laa yamale rek waaye nga xam lu bari mooy ñu xam xamal la fi nga jëm fan la mooy xam-xam bu mat sëkk nga gànnaayoo ko ndax bari waa na ku nangoo yenu responsabilité waaye xam-xam ba day des bu boobaa day manqué bokk na ca wàccaay woowat mooy ñu yar la ndax yar dong mooy li nga xam ne doomu aadama mënu koo ñàkk ni ko boroom xam-xam yi di waxe àdduna ku ko bëgg lijjanti faw ñu yar la avant ngay lijjanti àdduna koo fi mën di gis ak foo mën di bokk kon kuñ bàyyi nga nga doxee na la neex boo lijjanti adduna rek mu soogi soogi ñaaga wala boog mu jaxasoo ndax la nga miinoon te xam ko mooy sa bakkan dong nga daan topp ci lépp waaye sëriñ bi waajaloon nañ ko ca wet googa ci ay anam yëpp comme mooy li ma la wax léegi nettali léegi xam ne sëriñ am sut moo ko nettali ak xisa bu gudd boobu bokk na ci at mooy daal lay togg ay jëf mooy bañ laa teel laa togg ay jëf mooy nit ki ñu bañ laa bàyyi nga noppalu waaye lépp lu jot rek ñu te daal lay teg loola nga daal di xam ne lii yaa ko war a gàddu mooy foo war a gàddoo mbir rek nga gàddoo fa nga ko war a gàddoo dana waral dara dootu di seeti ci yow ndax luy ñëw rek fekk na nga mën ko bu baax te sëñ Modou noonu la ko sëriñ bi teeloon a def moo tax bi mu demee gànnaar mu nangul ko loolu maanaam mu yëg ne moom kat sëriñ bi lii muy gàddu lii mu yanu donte sëriñ bi ci moom gisul woon kenn ndax boppam rek la doon gis waaye moom it yërmandeem ji yërëm sëriñ bi ak euh, ni muy xoole sëriñ bi ak bët bi mu koy gis jàpp na ne lii mun a ñàkk ci moom kon na ko na ñëw li ko ci ak wetam foofaat fa la dolli ci ab xam-xam xam-xam bu sell ak jàngaat fa saxaafa bi nga xam ne naar yi ak yenn xeet yëpp gàddu nañ ko tey loolu bokk ci li nga xam ne mënta ñàkk ngir nga boo bëgg yenu askan aw askan ci seeni responsabilité faaw nga jëlaale loolu kon loolu foofa la tàmbalee nag di waajale boppam bi sëriñ bi ñëwee ci naka noonu mbooleem njaboot gi nga xam ne ndax àdduna ay mboolem ay ñii ñoo ko seq mooy ñi nga xam ne dañuy wut si yàlla ak ñi wut si àdduna ak ñi nga xam ne ñoo yore lijjante yi àdduna yi ak ñi nga xam ne yow lañuy laaj si ndigal ñii ñoo seq àdduna sëriñ bi tàmbalee nag fa gën a kawe mooy nit ñi nga xam ne mooy tubaab yi ak naari gànnaar yi ak ñenn ñi nga xam ne dañuy ñëw fi sëriñ bi te yor ay responsabilités yu mag sëriñ bi tàmbali di ko boole ak ñoom di ko ko lijjantiloo ngir mu mën a xam ñii ñan la mu muy xam muy teg bëtam ci lépp waaye di gis lépp te booba ñaar fukki atam matagut ca la tàmbalee gàddu gàddu responsabilité yooyu sëñ bi di ko yabal muy dem ak a dikk ci mboolem kilifa yi loolan moo tax ba Seex Siidee di ñëw ñëwam bu siiw boobu xam ne ñu bari ñu ngi koy nettali sëriñ bi yabal ko mu dem gànnaar ngir mu gàttandu ko ndax kilifa gu mag la woon te sëriñ bi fekkoon na ko ci fekkoon na ko gànnaar waaye niñ ko waajale ci xam-xam tax na ba mu dajeeg Seex Siidee Seex see dégg nga lam ko wax ci mujj gu wax way ga wal mustafa in saabahat afaalahu afaala di fa laysa bi saalimi ne ko na xam day doom bu nuroo baay ba wàcc na kon loola waajal nañ ko donte nag sëñ Tuubaa moom kenn kenn du mel ne moom kenn du jël sa bopp di ko di ko di ko dendale ak moom waaye eh, nam ko nam waxee ak moom nam ko tontoo rek xam ne ne kii moom ku ñu waajal la ci anam yëpp kon loola bokk na ci wàccaay waaye bokk na ci responsabilité yooyoot mooy njaboot gi xam ne sëriñ bi ci boppam moom lañ yaakaar di ko diglu ci lépp mu tàmbali dox seen diggante ak sëriñ bi mooy fexe na ba xam na jubluk sëriñ bi akuk bëggam ngir nit ku ko bëgg a ku bëgg jël ay masuuli ay responsabilité am faaw nga xam ak jubloom akuk bëggam nga nekkal ca sa bopp mu nekk sëwru ci yow ab yëg-yëg boo xam ne danga nga koy yëg ba nga xam ne su waroo laaj dara sa xel dem ca loola mooy nit nga taqoo ak moom ba xam ak jubluwaayam ak la muy bëgg ak la muy bañ xana lépp loo defati rek xam nga la xam nga fa mu koy féetale loolu mag mu baax day faral di nettali ne sëñ Modou saa yu masaana ñëw fi sëriñ bi su mag ñi toogee kenn ku ci ne nekk ci sa maanaam nga toog ak ña nga war a toogal di waxtaan moom day dem ba sës ci aw sàkket wan leen ginnaaw jëmale kanam ca sàkket wa ngir ba bëgg di fuglu sëriñ bi saa yu dégg ak yëgam rek ak ak yëngoom rek ba kenn di defarwaat moom mu sëriñ bu ñëwee du ko fekk mu mu mu soppi mu soppi aw toogin loolu bokk na ca wàccaay wi ndax sëriñ bi ak melokaan yi mu amee woon ak ni mu daan ñëwee fi ñoom loolu taxoon naat eh, ndax nit bu fekkee ne li nga koy def loo maga ca lam war a ne ma ca dafa am lu bari loo xam ne danga ko def ci yow mooy day mujj yàgg eh, eh, kersa day dox seen diggante loolu taxoon naat mu mën dara ci sëriñ bi mooy responsabilité bi mu teel a jël. xelum sëriñ bi dal ci moom maanaam Cheikh Mouhamadul Moustapha xelum sëriñ bi dafa dal ci moom ci ak nekkam ci ak ndawam mooy musu koo def loo lenn wala mu yaakaar ci moom lenn bu ñëwee fekke ko mu defee maanaam amewu ko amewu ko nam ko bëggee loola ay waxtu yu maanaam waxtu yu duñu ko may waaye yu baree baree bare jaar na fi yoo xam ne loola dal na ci xel te kenn ku ci nekk ñu ñu ko jamonoonteel ñëpp it xam ne ñamat na loola xam ne bu ñu ko doon wax daal ci ak tënk mooy ci nekkuk sëriñ bi mbooleem li nga xam ne am amir daana ko gàddul waaye wala ab xaayit daana ko gàddul ab buuram Cheikh Mouhamadou Moustapha gàdduloon na ko sëriñ bi ci ak nekkam ci anam yëpp ndax eh, amir mooy nit jàmbaar goo xam ne dafa mat sëkk ba kenn du ko du ko yabe ak ñàkk ak ak yaafus ndax ñi nga xam ne dañoo defe woon seen bopp ci man-manu adduna maanaam di liggéey di jibal sëriñ bi kenn ku ci ne la nga boo dajalee la nga daan def ci at ba indi ko ci sëriñ bi bu du mu Moussa ñëwee gàcceel la ca melokaan woowu te teewul moom mu gànnaayoon nag doon doomi sëriñ Tuubaa mooy kon foofu liñ fiy jàngale rek mooy doomi diwlaa wala ci diwlaa sës teewulaa def nag wut ngërëmal kooko ba am ko na ko ñëpp di amee mooy na ko taalibe bi amee wala dongo ba di ko amee nga wute ko noonu dana waral saa yoo ko wuutoo mën a jël responsabilité yooyu euh, loola moo waraloon bi mu ko digalee mu sañ ci xusnu ma ab gii di tindoo di bu donga ya daan bay lu ñu bay lu mu bari bari ba ñëpp di ko yéem su koy yóbbu dana dajalewaale donga yi danañ xam ne sëriñ bi moom buñ ko masaana a bàyyi ci kër gi kaamil yi daan bind dana gàcceel mboolem kenn daxu koon a bind te daana bind kaamil yu ab lim lim bindal Sëñ Tuubaa ci abi kaamil bindalu ko ko ci njaboot gi nga xam ne ñoo sës ci moom kon loolu ab tegtal la ci ne moom liggéey bi yàqalu ko woon it nag digganteem ak lijjanti yi mu daan lijjanti yëpp tolloo ak farlu la ak nangoo jël responsabilité kon loolu daal euh, mën nañ ko tënk ci digganteem ak sëriñ bi ci anam yëpp diirub bi nga xam ne tàmm na ni jël responsabilité mbooleem foo xam ne sëriñ bi wàcc na fa wala mu dem fa Cheikh Modou Moustapha ca ña doon toppatoo dem ga ak anaminu dem wa ñëpp ca la bokk ay détails eh, waxtu yu may ñu ngir ñu ngir ñu dugg ci détails yooyu waaye anam yëpp kenn koo xam ne dem na fa ak nu mu fa demee rek Serigne Cheikh mustafaa Moustapha toppatoo na loola ba eh, bokk na ci ay yitteem ak ak doxalinam sax bari na ci barab yoo xam ne xëy na tubaab bi amoon nañ yéene yóbbu ko fa waaye ci Cheikh Moustapha eh, himma bu mu am yitte ju am tax na ba dox na ci diggante bi ba tax loolee mu fanq ak mbir yu bare bare bare yoo xam ne dox na ci diggante kon loolu daal bokk na ci waajtaay woo ko sëriñ bi waajoon waaye nag it def na tajriba bi ci ak nekkam ba sëriñ bi doyloo ko maanaam euh, li nga xam ne sëriñ bi doon nag ko jàngal jëf na ko ci kanamu sëriñ bi ba sëriñ bi wóor ko ne kii kat masuliye bi mu ko dénk attan na ko te dana ko mën a doxal loolu moo tax nag su nu ñëwee ci beneen partie bi dana gën a leer ci xam ne euh, lu bari dana ci gën a leer loolu daal moo doonoon lu nekkuk sëriñ bi ak Cheikh Mouhamadou Moustapha. jërëjëf sëñ ci leeral yu am solo yi nga indi su ma dee jàngat li nga wax mooy sëriñ bi bi ñibbisee ci géej gi fa mu mas nekk rek moo Cheikh Moustapha ñoo fa bokk nekk. kon mu mel ni su ma la déggee dëgg mooy Cheikh Moustapha dafa jàng sëñ bi ba xam ko ndeke danga ma jàngalit ne li gën ci li nit di bàyyi ci gannaaw mooy doom ju baax alwaladu saalih waaye loolu ndeke ngir nga am ko mooy mënoo ñàkk yar ndaw li. mënoo ko ñàkk jàngal waaye mënoo koo ñàkk tërbiya mu mel ne Cheikh Moustapha baat boobu de wax nañ ne daana wax ne lu faay def ba Cheikh ba nga koy def maa ngi yow ànd maanaam laay defal sëñ Tuubaa ba mu seexal ba nga koy def maa ngi yow ànd te teewut moo ma mooy sama waajur te dégg naa waaye man jubóo ma doy kon mu mel ne alwaladu saalix ndekk woon nit ki day góorgóorlu ba am ko waaye itam danga ma jàngalaat ne dafa wegoon sëñ bi mujj sëñ bi rus ko kon ndeke doom du dem ci bàyyam naa ko bàyyi indi defal a nangam waaye da ngay def jëf joo xam ji sa waajur lay rus ndax nit nit ki bu la xasee ba rus doo xamoo xayam waaye jàngalaan nga ma itam nekke doom bu bu baay bu wóoloo doom dana ko mën a yónni ci kilifa gu ne ndax dana xam ne du ko fa rusloo jàngal nga ma ci yónni gi mu ko yónni mu gàttandu ci Cheikh Sidiya Baba ak way am solo ya ca yam ca def xam naa ne temps bee ko matoon naa laal tuuti liñ ci jublu mooy ndaw yi nga xam ne dañoo nekk seen kilifa ci jamono mu bi xew ci diggante nit ak waajuram ñu war a dellu si waat seex Cheikh Moustapha ci anam yooyu mu daan nekk ak sëriñ bi. sëriñ bi daa mel ni bi muy yeesal Touba moom la doy la woon mu yeesalaatal ko Touba ci noonu nga ko waxee mu daal di sancaloo ko di te booba nag na ñëpp jàpp ne sëñ Modou Sa amagut fanweeri atam defe naa li ci bu matee li ci tege bëriwul ñaar fukki ñett lay lay am ci jamono yooyu yi muy sanc tundooti bokk yi ñu seet ci jamono ji nag waxambaane ñeent fukki at mënagut a am ñeegu boppam ci kër baayam kon ñu xam ne albarakatu lil mutabarikiina waaye barke booba la ko fa yóbboon nag bokk na ci ab yar waaye sëñ Mbàkke fi may bëgg di ko yow mag nettali na ma Cheikh Moustapha juróom yu ko sëñ bu mag bi dénkoon moom la daan def ci maxtoom moomu mu mel ne responsabilité yu rëy la woon ci jamono yooyu lam ko njëkkoon a wax mooy li ma mënul sama bopp may ma jóge fi nga yóbbu ma tubaate ba dam taxawul ma sama dëkk bi ba mu nekk ci loxo ñi ma fi nekkal maanaam ñu titre foncier ko ba nga xam ne ku bokkut ci moom dootoo ko yëlëf tabaxal ma fa jumaa taxawul ma njaboot gi ba duñ jooy waajur waaye itam bis bi ma ñibbisee nag bu amee nangami at nga wool ma jëm yëpp ñu dajaf mu mel ni juróom yooyu yitteeloon na Cheikh Moustapha bañ wax ne daw nelaw ngir loolu loolu nag sëñ Mbàkke pour Cheikh Moustapha réussir ko ci gannaaw Serigne Touba euh, yan anam la jaar ba loolu am gannaaw biñ ko tàggatee ba noppi sëñ Mbàkke bisimilah. jërëjëf sëñ Basirou ci laaj bi daanaka loolu moo taxoon sëriñ bi di ko. maanaam doon ko waajal ci wàccaay woowu ndax wàccaay li mu amee solo mooy toujours dama koy faral di wax léeg-léeg nga dégg benn nit koo xam ne dañ koy dénk ab responsabilité muy ab ministère wala chef de gouvernement wala ab idaara ab direction boo xam ne da nga koy yor jàngal nañ la ba am nga diplômé nga ca wàll googa waaye defaluñ la maanaam istiada bi baaxul tax boo ko yoree rek ñëpp xarab la xam-xam ba ma nga fa waaye yar ba ak istiadaat bañ la war a defal dafa amut léeg-léeg nga dégg koo xam ne xam-xamam ëggul ca foofa waaye defal nañ ko waajal nañ ko wàccaay woo xam ne su toogee ca place ba da koy fees dell toujours léeg-léeg nga dégg ñu naan diw moom mënut a ñàkk ci barab sàngam loolu du xam-xam ndax am nañu am xam-xam ba waaye waaj wañ ko wàccaay waajal ak ka ko waajal loola mooy sëriñ bi ni mu ko faroon daan wax naan ku la yar nit ki ki ko yar rek mooy def ci moom li mu war a def ci moom lépp loolu nag dafa nekk lu manqué lool léegi ci jamono te ñu war ko mën a jàngewaat nag ci jëmm ji ñuy nettali waxtaane tey ak ki ko waajal ndax élément yi nga xam ne moom la ko sëriñ bi doon waajale yépp mu ngi ci àdduna mosu fee jóge waaye ñu ko war a jël nag ndax ñi ngi koy jël ndax ñi ngi jël élément yi maanaam matériel boobu sëriñ bi yore woon ngir waajale ko sëñ Mor Moustapha ndax ñi ngi koy jël ci njaboot gi ngir bu ëllëgëtee bu ëllëgatee dara du dara du yàqu ci li mu fi yoro ab ab question la Cheikh Ahmadou Moustapha li nga wax léegi nii bi ko sëriñ bi waajalee ci anam yooyu yëpp ba noppi dafa am lu taxoon mooy sëriñ bi taxawal na fi loo xam ne bëggul loolee bu ëllëgatee ñu naan mi ngi fi woon comme ni ko bokk yi nga xam ne xëy na doon nañ ko sajj aw xef li ñu doon wax tàkk-tàkkal mboob la te bur woon ak moom ak lépp ndax booba moom rek mooy ki ki mooy masuliye bi nga masul bi nga xam ne moom rek lañ koy laaj parce que moo féete mag ci njaboot gi yëpp waaye ci jomam ji nga xam ne enrox la dasa maanaam da ko donn ci ay bokkam ak fit wi nga xam ne jëlee na ko Serigne Touba xam-xam bu mat sëkk boo xam ne dañ koy dañ koy jàngi la ca na mooy wàccaay wi ñu ko waajal tax na loola eh, dafa mel ne sëriñ bi bi mu fi bàyyi ko jëmm ji rek ngay nettali waaye tey buñ ci mënee joti ñun Cheikh Mamadou Moustapha moomee la ndax juróomi respons li nga wax nii léegi xëy na war a ëpp na juróom sax sëriñ bi dénkoon ko ko xane euh, moom moom la jëloon defoon ko ci jëmmi boppam di ko def ci maxtoom waxtu wu ci ne mu ci teg bëtam ngir xam ne lii moom ci moom la war a mën a sottee lenn loo xam ne nit mën na caa teg baat baat amut la ca jëkk mooy indi sëriñ bi Tuuba booba ak daanu ko te indiwu ko ñu bari nañ bàyyi xel loolu mooy ñu ne sëriñ bi bàyyi koo na fi rek nga yoo ko dem jëli ko njaareem indiwu ko te loolu dinaa ci jamono tey may nañu tey ngir ñu man koo leeral ndax administration wala koloñalis yi ni ñu doon dundee ak ñun ba fi ni nii sax loolu moo fi xam mu tax ñi nga xam ne ñoo yore doole yi doole doole adduna bi fi ne noonu la ñuy dundee ak ñun ñu bari jàng nañ ko ci korona bii jàll rek ku génn fii bëgg a jëm ci barab ak daanu ko te yóbbuwu la waaye am xel moo la yóbbu mooy yoon wa lërëdal nga mën caa jaar te nit bu ñu koy préparé ngir mu ndax Serigne Cheikh Mbacke Ahmadou da daan faral di wax ne adduna saayir su wér kéng moo koy lijjanti loolu nañ ko boole ci dundiinu doomu adama yi mooy àdduna ba ñu fi suñu borom wàccee ngir ñu gàddu ay responsabilité la waaye ak nite ca la bokk ak insaniya mooy ak nite moo mooy jiitu ca lépp te loolu sëriñ bi waajaloon na ko ci njëlbeen euh, waxtu wi dañu ko moyut waaye ba mu demee ba li indi njeeñ wi mooy di sëqal boppam di sol ay sagar di def di yëg lii ak bi ne ko nag watal bopp bi ba mu set wicc ak nite ci laa lay liggéeyloo ak nite parce que waa àdduna moom ak nite rek mooy tax nga ma leen a yilif bokk na ci point bi nga xam ne ci la njëkk a jëflante ak moom ndax ku toll ne seexul xadiim li topp ci ginnaawam xam ne moom rek la ñuy déglu àdduna bépp taxaw di ko bàyyi xel ñu ne la bàyyikoo na fi tey tey yow yaay yow yaay yow yaay yow yow yaay responsable yow tey lu ci am rek yow lañ ciy déglu donte nag am na ñu ko mag ci taalibe yi loola lu lu rëy la waaye lam njëkk a jëfe mooy am xel mooy képp ku ko war a yëg te mënoo koo ñàkk bañ a yëg te sam xel matale dalu xel nga xam ne kullu nafsin saa'iqatul mawt ba maakaana Muhammadin ba mu wàccee léegi ku fi mën di am rek dafay jóge ñooña la daal di cay diisool ñëpp kenn ku ci ne ba nga ko waree yëg ca waxtu ba nga ko waree yëg nga ko kenn ku ci ne ba nga ko waree yëg ca ko waree yëg ànd naa ko mu xel a yëgal la ko waaye yëmu ci waaye ki nga xam ne moom la ko seqaloon it mu jëflante am xel xam ne nit rek la na ko ko yëgal fekk sëriñ bi defal na te ak ci ak nekkam wanoon na ko ni ñuy jëflante ak ñoom xamoon na tubaab yi yi ngi ko seqal te ñoom préparé woon nañ ay barab yi ñu ko war a yóbbee waaye am xel rek la ko la jëflante ak ñoom mooy sëriñ bi kat wax ak ñoom waxi nit loolu nañ ko jiital ci lépp mooy sëriñ bi kat bàyyi na fi mu yëg ko xam ne bàyyi na fi mu dem ba tiim ko dem ba jege ko xam ne kee kat na fi. mu ne ko dama ko bëgg a yóbbu nag ca këram nga ca tubaa ñu defal ko kayit wuy teg tale na kii kat bàyyi ko na fi waaye nañ ko fa yóbbu provisoirement parce que loolu moom leneen la ñuy rek la la mooy àdduna kon am xel a koy lijjanti am xel la jiital ci lépp loolu moo tax dara yënguwut ci kër gi xanaa taalibe yi jógoo ko daanu te ñooña eh, ci seen bopp lay delluwaat mooy seen responsabilité la waaye leneen yënguwaatu fa te booba dara mënoon naa yëngu ñun lañ cey jànge mooy kon bu dara xewee ak lu man di xew rek ñu xam ne baatin xëy na ah, dëgg la mën naa lijjanti lu bari waaye nag adduna moom saay rek a lijjanti ndax bu bu fekkoon mën na ko lijjanti rek kon du aaje yi ñu def yëpp lu ñuy lijjantee te ñu lijjantee ko ci am xel akuk dal ak xel mu mat sëkk ba loolu mën a sotti noonu la ko defee ba ku ko war a yëg nga ko ba mu ñëw ba agsi fi am na ñoo xam ne xëy na bu ñu ko yëgoon booba ni ñu ko bëggee indee ba si Tuubaa du am loola ci nekk ko sëriñ bi la ko sëriñ bi waajale waaye mu indi ko te loolu mooy li gënoon a ndax kenn wérantiwut ni ci 1921 Cheikh Mbacke Bousso bind na ab lettre boo xam ne mi ngi ñaan tubaab bi ak ñenn ci njaboot gi bind nañ ab lettre boo xam ne ab maanaam convention lañ ko mën a tuddee ci magi taalibe yoo xam ne sañoon nañ booba bindal sëriñ bi ñaan sëriñ bi ngir mu jóge euh, njaareem ñëw ñëw ci dëkkam bii rek donte dafi ñëw gis ko ndax moom la gënoon a bëgg ndax tubaab bi mayu ko ko woon ko ko woon loolu ñu ba ñu bari ñu bàyyi ko xel kon booba ay at lijjantiwut adduna waaye am xel mu sell mu set moo koy lijjanti kuy dund nag di mën a dem ak ñëw nga bind ne damaa bëgg mu dem ca dëkkam bele mayuñu ko ko mu bàyyi ko fi ñu wóor ne boo ko fa yóbboo ak doomu aadama lu lu mu doy di doy di xam ne nit mu bu fi bàyyi ko bu ñu ko xasee denc des ko dindiwaat nga lijjanti léegi ba ñu yóbbu ko loolu am xel moo koy lijjanti kon nañu jëfandikoo suum xel ci anam yépp ba ca topp dafa mel ne lu ñëw day gën a diis mooy ak njaboot ñoo ko wër te sëriñ bi nekko bu xat damm mooy fexe ba njaboot gi kenn ku ci ne nga xam li nga doon sëñ Tuubaa du defar lenn loo xam ne kenn da cay tegaat baat te kum defar weesu nga ak yàq te kenn ku ci ne mat nga la nga doon te kenn ku ci ne la la jëlee ci dëkk ba nga bàyyi ko ak sant woo man di am bi nga ñëwee yaa gën say bokk te sëñ bi def na ci yow loo xam ne weesu yàq te kenn ku ci ne la la sëriñ bi defalee doyloo nga ko doyloo goo xam ne doy na la sëkk foo mën de mën a defar aw nit la sëriñ bi ak jubluwaayam mooy ñi mu doon defar defalu leen woon ngir ñu di ko wër waaye da leen doon defar ngir su noppee ci ñoom fuñ nekk doon fa am Serigne Touba loolu ñu bàyyi ko xel bu baax defarul woon ngir ñu di ko wër ab communauté parce que Mouridia sax du benn turux boo xam ne yoon am na ñu koy tuddee xaraka ak ala kulli wax yu wax yu ci mën am waaye du yoon woo xam ne eh, day day taxaw ay fondement naan fii mooy fii déedéet waaye. da defar ay jëmm yoo xam ne da mboolem li fi mag ñu baax ñi bàyyi salaf saalex yi fi nekkoon xam ne ñoom la fi wuutu te wax na ñoom wuutu na leen ba jox nañ ko la ñu yoroon kenn ku ci ne bu la wuutoo defar la la wër lépp mu jël ko mooy kenn ku ne mu defar la ba boo génnee doon ab kon boo xam ne ci lislaam rek ngay defar loolu la moo tax mu wax liñ ma jami ma tafaraxa la ak la ca topp ak bëy dee ca topp yépp kon foofu dañ fiy jàngale lu am solo Mm, bi ci topp mooy njaboot googu kenn ku ci ne muy diisoo ak yow mooy bu dee maga muy waxtaan ak yow mooy magum taalibe moo xam ne bu dee ak mbokk nga séq ak sëriñ bi jëloon ko jaay ko jëndee ko ak taalibe mu jox la cër bala ba nga cërub démb ba nga xam ne moom yaa ko moomoon démb ci kanamu sëriñ bi mu jox la ko ba mat sëkk ku mel ne Cheikh Ibrahima Faati ak njaboot gi nga xam ne ñoo ko waroon ñëpp bu dee doom la xam ne ñoom ci ñoom ñëpp ci ak ronam lañ nekk nag mu jël leen di leen xoole bëtub sëriñ bi ci ñoom loolu jural na ko lu rëy mooy moo ko may nag li mu bëgg ndax euh, njaboot gi nga xam ne ñoom ñoom la wuutu ci moom la moom la wuutu ñoom ci ñoom la wuutu sëñ bi jël responsa seen responsabilité mooy nangoo jël responsabilité bi ñi nga bokkal baay yombut nag mooy wuutu leen ba nga xam ne bu bu fi seen wayjur taxawoon tey ñoom mën nañ ko bañ a gis ngir sa jëmm ci ci mu njàng la ca jiitu mooy jàngal leen boole leen ak ñoo xam ne ci ak bokk duñ leen xeeb ëllëg parce que jàng sax am na waaye boole laa koo xam ne boo lëggatee boo génnee ñu ne kii fu mu bawoo boole leen ak ñoo xam ne danañ leen mën a wan sëriñ bi bañ mën ko buñ ko mënut a gisu ci seen seen bët bët biit seenu xol di ko gis loolu lépp moo ko def ci njabootu sëriñ bi ku ci dut ñii xam ne fekk na leen def mag ñëpp moo ko def ci ñoom loolu moo tax wax yu bari ñu naan am na ci ñoo xam ne xamuñu woon seen wajur waaye jàppoon nañu sëñ Moussa moom seen doo seen taalibe bàyyi la woon ak wax yi ci am yépp xane waxtu yu may ñu ko loolu lépp nag kenn ku ci ne war na caa delluwaat ngir jàng ci ba ca toppit mooy injaasaat yi nga xam ne def na ko ci nekk nekku sëriñ bi mooy fexe ba euh, sëriñ bi bàyyi woon na ay procès jumaa ji ca la bokk dëkkam bi ci la bokk te tàmbali woon na ko amoon ci ak bëgg ba am ñum ci tàmbali liggéeyal ay jafe-jafe am ca mu gàdduwaat loola bi mu koy gàdduwaat fekk na lu baree baree bare ñu teg ko ko ne ko liig liig lii mënta ñàkk waaye mu xam ne moom bëggu sëriñ bi rek jaral na ko lépp lépp mu gàdd ko ci ginnaaw ci jamono joo xam ne ku xam histoire xam nga ne 1929 bourse yu bari dafa fay ci àdduna bi économie yépp dafa daanu nit ñi dañ ne siiw am lu ñu lekk waaye mu xam ne lii sëriñ bi bëgg moom kenn banaa leel baax yi suñu borom wax na ko ko bu noppi te buñ ko defutit keneen dana ko def waaye mu fas yéene mu sonte ci moom foofu li ñu fi jànge lu tuuti rek mooy ñu xam ne Cheikh Mouhamadoul Moustapha maanaam fexe ba def dara mooy li am solo ci àdduna fexe ba def dara loolu nit ñi nañ koy bàyyi xel waaye lii dana am ala kulli alin bu ma ko bëggee da ngay fexe ba def fi dara ci àdduna yow yow sa jëmmi bopp être humain boo xam ne dafa dund nekk ku am na fexe ba samp dara loo xam ne bu fi jógee ci wóor na ko ne lim nekk def na sàkkul mën xëj yi ci mbiram ba jàpp ab loxoom ne xam ne lii lu wér la boo lëgëtee mu def ca loo xam ne ba adduna tukki ñëpp danañ xam ne def na fi dara àdduna boo fi defu dara rek niil nga mooy ay rëdd rek a fi am fexal ba soo rëdd jub fexal ba soo rëdd ñu bàyyi ko fi ne rëdd yi danañ ci mën a jaar loolu la doon wane ci melokaan woowu waxtu wi nag mayuñu ko waaye kon ñu gën a leeral foofu ci yoon yim jaar ba loolu lépp mën a am euh, jërëjëf sëñ Mbacke day mel ni bu ma déggee sa wax lii taaral liggéey Serigne Touba bi mooy Cheikh Moustapha ndax bu Touba dee Touba Serigne Cheikh Moustapha bu fi Serigne Touba nekk doon defe naa moog dëkk yëpp a yem buñ ko titre foncier wutoon it moog dëkk yëpp a yem waaye bu fi jumaa ji nekkutoon moog moog dëkk yëpp a yem kon lépp ci loxol Cheikh Moustapha ci la ko yàlla jaarale mu amee fi kon bu Touba dee Touba Cheikh Moustapha ñi nga waxit ne moo yar njabootu Serigne Touba gi ku duñ mag ñi ku dul Serigne Cheikh Mahamadul Amin doo Cheikh Mahamadul Bachir doo Cheikh Mahamad Fadal doo Cheikh Serigne Abdou Borom Dër bi sëñ Modou Moussa yar waaye xamewuñ ñim yar ak ñi sëñ Tuubaa yar kon mu mel ni lim doon woon ci e, sëriñ bi def na ko ci ñoom naka noonu itam ndeke kon Touba neexutoon a yeesal ndax maam Thierno gannaaw sëñ Touba daa mel ni ñëwoon na fi bu ko yeesal Touba bi tere ko ñaa nga ma léegi bi sëñ Mbàkke Busso bind na 1921 demande pour sëñ bi ñëw gis Touba Touba bi gàntu kon yeesal ko yombutoon kon nag bu nee Cheikh Moussa demal yeesal ma ko. kon kooku defee naa ne am lu defoon ci moom waaye tudd nga Cheikh Moussa aku fit muy fit bi mu mën a am ndax yooyu jamono ku tubaab mës a dugg sa kër nga daw mag ñi bari ñoo xam ne bu tubaab toxee ci benn ci moom dañu daw Cheikh Moustapha atte na taxaw ku toll ni kilifa gi France teg ni ko sëñ bi jóge na fi waaye dama ko yóbbu tubaab boobu bokk yi ñi nemee taxaw loolu bariwul de ku nee tubaab bi gisu ko rek wax nga loo xam ndax sëñ bi lim liggéeyal sëñ tu euh, boromam su fekkee bëtu tubaab bee ko nar a yàq kon kon kon daa mel yàlla nangu ko moo ko tubaab ba jaxasoo ñaar juróom-ñett di manqué tuuti ñu ne tubaab bi tegu ko bët tubaab bi teg na ko bët Cheikh Moustapha andi ko te lii fiir wi itam biñ ko laajee da ngaa yeble ci guddi googu toog mu ne daa bëgg koy jàpp bu ñëwee jàpp ko waaye sëñ Mbàkke tudd nga ma léegi dal gi taalibe yi amoon bi ñuy indi Sëriñ Tuubaa mu mel ni loolu la jamono gën a laaj ndax waa kër gi nee nañ tekk ba bañ denc ba ñëw ba maam Thierno moo moo ko wax waa kër euh, euh, waa Barsàq ñu door tàmbali ñu door ko wax taalib yi waaye léegi kilifa jóge na fi ñu di ko denc muta booba média yi na ma yàlla jégal ñoom ñëpp dem ba mujj ñi fii lañ ko denc ñii dem fee ñii dem fee est-ce que kon loolu waruñu dellu si waat njàngale moomu kon sëñ Mbàkke ndax booba day sëñ Tuubaa ni mu tolloon ci jamono ak dimension bi mu amoon ci àddina ñu andi ko ba denc ko ba bët set ñu door na leen denc na maam Thierno doon denc nañ ko baax kon mbokk yi loolu war nañ ko dellu si waaye sëñ Mbàkke fi may dellu siwaat ci fiitu Cheikh Moustapha maam Thierno li mu njëkk wax mooy ku nekk sa kër bàyyi dafa mag war nga ko bàyyi xel bi mu nekk Sëñ Tuubaa ab jullit la woon dañ koy miraas daf na kër lépp mën naa taxaw ba mu des njëlli njëlli nañ ma ko jaay ma jënd ko njëlli fa la ko fay kër gi dox na mu dox loolu ci responsabilité bu mag la bokk te nee na liggéey baax na ndax nee na boobu sàqum fukk mu ma bojj tundooti indi bàyyi naa fukki fukk sàq mu indi ma andi meneen bi mu laata jeex la dugub ñoraat kon loolu sëñ Mbàkke andil nga ma ku ñeme responsabilité kilifa gu nekk nag war koo bàyyi xel damay andi misaal saa su nag ci imaam Ali nag yonent bi alayhi salaatu bi daa wax ne ana madinatu hilmu te xare bu ñu dem mu dénk ko drapo bi kon Cheikh Moustapha daa amee taxawaay boobu la amoon kon mbokk yi ñu ngi may signalé na lii lañ amoon ci waxtu sëñ Mbàkke ñu ngi lay sant bu baax ci xam-xam bu rafet bu leer bi nga indi ak taxawaay Cheikh Moustapha bu am solo bi nga indi ci nii ndaw war a nekkee kilifaam ak kilifa bu batalee doomam nam ca war a taxawee am kon loolu la ñuy jàng ci waxtaan bi mbokk yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax wa axiru dahwaana alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.